les nipples là les les pipettes. Mhm. Ah, gars yi mënaguñ ko defar fii. wala boog mhm. amaguñu technologie pour defar. mais est-ce que yéen ñi dem ba àgg ci niveau importé. Mhm. matériel est-ce que tamit yéen amuleen doole boo leen fayee taxi. Hmm? parce que dañuy gis ay ay ay capitaine d'industrie am alal ju dul jeex di laaj exonération. mais ñun ñun lu ñuy laaj ñoo ngi koy defal ñeneen. oui. Ah. donc nekk nekk lu des. ñu mag ñi. non même euh, même étranger sax. parce que boo xoolee boo boo non mais attendez boo jëlee par exemple dans les trucs dans les infrastructures minières. problème jën baa ngay a am ay exonération. sur cinq dix ans. les industries minières mais ceux qui sont dans la dans on appelle ça dans les activités primaires comme ñun producteurs de poulet yi ñi nga xam ne dañuy def l'oignon ñi nga xam ne dañuy def dans la pomme de terre est-ce qu'on a des zones dédiées déjà les zones économiques spéciales là des zones dañ leen di exonérer yombala leen yenn affaire yi ñun amuñu loolu déjà fi ñu produire ginaar Dakar pour Dakar mu ngi gën di sori. Mhm. donc de facto njëgu ginaar boobu boo egsee Dakar day gën a cher. boo xoolee zone bi yi ñuy produire ginaar surtout pour élevage yi mag yëpp ñu ngi nekk sur la côte ouest tey fi mu toll nii ñëpp ñu ngi bëgg dem dëkk boor géej bu dul dara sax état bi mi ngi fay xaalu yoon. y'a la route la Ila Tivaouane bi war a dem ba saint mm. mais élevage yi gën mag ñu ngi tëj. Ah. amatuñu place yoonu Kaolack yoonu Kaolack bi mi ngi ñëw. Mm-hmm. mais Kaolack dafa donc pour faire le type de poulet là qu'on veut nécessairement il faut nga nekk ci zone yi nga xam ne moo gën a sedd zone yi gën a sedd mooy zone yi jege géej bi mais waxuma ni mënuñu def ginaar Kaolack y a des éleveurs si si entre Mbour Mbour triangle boobu la mooy ñuy pratiquement tout le poulet qu'on à Dakar donc du coup y' a y' a y' a y' a du travail à faire ñun def nañu en 2019 benn plan de relance bu ñu def au niveau de l' interprofession mm-hmm. le qu'on appelle le PRAVIS le plan de relance de l' sénégalaise et ça a été par le président Macky Sall. mais mm-hmm. aujourd'hui plan boobu noonu mi ngi mi ngi mi ngi toog ñi ngi xaar financement mënuñu fexe ba jot ci ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne yooyu yëpp dafa nekk yi nga xam ne dafay tardel dafay tardel euh, filière bi boo waree compétir ak des pays comme le ñoom dañ leen di jox xaalis pour produire plus et mieux. Mhm. ñun lu ñu def pour produire plus et mieux ça vient de nos si en plus de cela nga war a supporter ay ay impôts ay impôts sur les yoo xam ne à la limite mënuñu man li may imposer warul toll ak ki nga imposer nga xam ne mooy mooy gas suuf si di ut jama wala or. Mhm, mhm. donc waru waru waru mën a tolloo. donc kii ut pétrole ak man mi di produire pour que nit ñi lekk waruñu mën a tolloo. mais si on, on est on est on est on est imposé on est taxé à la au, au même niveau ça ça ça pose problème. te ñëpp d'accord dysfonctionnement yi bëri trop. dafa bëri te ñun dañu nekk filière bi nga xam ne aujourd'hui ñi ngi ñuy wax waxu environnement mais on a on peut avoir un impact extrêmement positif sur l'environnement extrêmement positif. boo jëlee par exemple on on génère beaucoup de déchets dans la filière avicole. Mm-hmm. boo jëlee neefaru ginaar yi par exemple on génère beaucoup déchets. mais mais c'est excellent pour tout ce qui est production de céréales. mais ñi ngi préférer tey dépenser ay milliards pour jënd engrais chimique. waaw mm-hmm. te ñëpp d'accord nañu ak man que gis nañu gis nañu problème yi santé. Mm-hmm. yi nga xam ne engrais chimique bi moo ko bon voilà donc yooyu yëpp exemple yoo xam ni bu ñu doon yëndu fi dinañu wax ba nga xam ne ma gënoon wax sànq aussi lu am solo je pense que xaw nga ko brosse tuuti Serigne mooy par rapport ak euh, ni nga xam ne moom la démographie bi changé les mhm. ñu ngi gën di dem di dëkk par exemple ay Bambilor affaire te foofu de plus en plus foofu moo doon gën a am zone euh, kii léegi léegi comment comme lan ngeen xalaat ne noonu ngeen mën a def tey jii pour mën a soit cohabitation boobu déjà yoon daf koy dàq donc léegi beneen affaire bi mooy loolu pour mu mën a ne il faut ñu am ay zones dédiées comme Amadou ko waxee et loolu ça a été demande du du plan de relance mhm. maintenant nag problème bi mooy ñëpp xam nañu suuf problème suuf Sénégal donc euh, fan la jël bàyyil ko éleveurs fan la ñuy jël ba fan la ñuy jël bàyyil ko nit ñi donc dëkkuwaay boobu noonu il faut ñu xool naka lañ koy gérer parce que aussi il y a des normes xam ne qui font que fii boo fi amee élevage yu a ah ah, y a pour waaw ah, mais oui a pour des normes de sécurité aujourd'hui lu mel noonu indi woon na problème Maroc parce que ñoom entre distance entre élevage c'était deux kilomètres donc da ngay imaginer la ñuy utiliser comme foncier li ñuy soxla mm-hmm. man su ma nekkee fii élevage yu Birama bu waree ñëw dafay nekk dafa war a espace à deux kilomètres au moins donc euh, yooyu yëpp ñun bu ñu am bu ñu koy jël euh, texte yu ni mel il faut ñu xoolaat ko parce que aujourd'hui ñi ngi wax problème mu espace ñi ngi wax problème mu mais maintenant nag la ñuy trouver le, le le juste milieu. le juste dans tout milieu. ça voilà. d'accord léegi sinon par rapport de les, les petites et moyennes euh, dans votre secteur. Mm-hmm. quel est l'état de l'état de ces entreprises là. et quelle est la relation avec le ministère euh, du je commerce connais. qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. je dirais que c'est assez, difficile et ça ne va pas vite. Souvent les entrepreneurs au Sénégal dañu am euh, déficit dañu nekk en déficit d'information. par exemple da nekk entrepreneur nga bëgg a créer sa entreprise il faut aller certains vont te dire da ngay dem APIX ñenn ñi ne la demal chambre de commerce donc c'est pas souvent sur le même endroit que tu trouves toutes les informations aujourd'hui il y a comme Sénégal Service maintenant yooyu aussi entreprise aussi il faut mu am benn taille bi nga xam ni di nga mën a par exemple jëflante ak banque quand tu es dans les GIE ak affaires yooyu noonu bon donc du ñëpp ñoo ko am donc les jeunes là aussi ñu bëgg dugg euh, enrôler dans cette filière la aussi il faut aussi nga yombale leen ko de manière à ce que par exemple ces jeunes là puissent arriver mais ak yenn yenn yenn facilité yi mais aujourd'hui boo nekkee entrepreneur Sénégal il faut nga mën daw nga mën daw ça veut dire quoi ça veut dire il faut nga ñeme lu métti il faut nga am ce qu'on appelle toujours da ngay daj parcours du combattant yëpp doo ñëw lépp nga fekk ko ci benn place. Hmm. non fii dem fii dem fii dem fii à la limite si mentalement tu da ngay bàyyi. Hmm. da ngay bàyyi. tout simplement parce que tu te dis c'est c'est c'est fou quoi alors que dans d'autres pays on leur facilite les choses ba nga xam ni banques yi sax ñoo lay woo jàpp bureau ma da bëgg élever ok je peux juste prendre ton idée de projet ma tënkal la projet dugal la ci benn canal ñu financer la nga dem sa yoon Sénégal loolu amul amul non amul mais peu